وتبارك الله الملك العلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على مر الدهور والأيام وعلى خير خديمه خدوة الأنام mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daara yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu ñëpp di ziare ñépp di leen ndokkeel ci fan yu tedd yi nu nekk di fukki fan yi jëkk ci muharram weeru tamxarit di at mi jëkk ci atum jullit wala di weer wi jëkk ci atum jullit nu ngi ñaan yàlla ginnaaw bu nu ko santee ci may gi mu nu may nu fekke ko nu ñaan ko mu may nu nu fekkewaat ko yeneen yu bari te tal ko lépp nu na ci lu baax di daw ab sofaan mu di nu nangul ginnaaw loolu mbokki jullit yi at mi ci la weesu ci gàddaay ak yonent bi junni at ak ñeenti téeméer ak ñeen fukki at ak ñaar musta deñ di romb ci jamono waaye di dox dox bu yàgg musta deñit di ay xew-xew yu màgg kon noo ngi nii di dëgmal at mu bees nañ dajeeg moom yéen bokk yi ci ak sargal akuk màggal te mooy ay jaamu yàlla ak ay tuub nañ leen ko màggal ci xormay yàlla minu bind moytu cee def lépp lu xaram nañ ci baril ay julli ci yonent bi ak i tuub yéen mbokki julli yi na kenn ku nekk ci yenn xam ni des na gaaral ay jëfam ci liy weesu ci jamono yépp alxemes ju ne ak altene toskare ñeel na ko xam ni daa def lu baaxut waaye dana am gàcce ku def ak mooy yàlla ane ci gan anam ngay dajeek sa boroom yow mi dagg mi cofeel bu ma ne yow mi dagg mi cofeel mooy yow mi kóllëranteeg sa boroom ni danga koo sopp te koo sopp lam la digal ngay def di daw la mu la tere kon boo deful lam la digal def lam la tere dagg nga buumi cofeel sa digganteeg moom nan leen ragal yalla ci di top bu wer wi dikke ak wer yi ya ca dess su boba sun borom dana rafetal ñel len mujj gu rafet da ngeen wor juroom ñeenti fan ya ak fukk ya fukk ya nak wala juroom ñeenti ak fukk ya nak ci wer wi japp ginnaaw tey la ajjuma mooy samdi ji di suba ak ginnaaw suba di weer yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm nu fekke ko tal ko su boobaa nee nañ ko woor roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa jële nañ ci seydina abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw na madina fekk yahuud yi di woor bisu fukkeelu tamxarit mu laaj leen lu ngeen ci jublu ñu ni ko bis bi la yàlla musale firawna ak banu israil ca noon bu mag ba di firawna moo tax nu di ko woor yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dal di wax ni ñii de noo leen gën a yaay ci muusa daldi digle ñuy woor bisu fukkeelu tamxarit muy bis bu bari ay jeexit ci l'islam bis bu bari ay ngeneel yu yàlla defal jullit ñi bis boobu ci la yàlla jéggal sayidina aadama alayhi salaam incha allah aadam mook soxnaam borom bi da leen dëkkaloon aljanna leen nekk leen fi moom lépp lu leen neex def bu leen am frontière ba mu genn garab وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين waaye seytaane ci ak mën a fexeem ak bañ gum bañ lu baax ak ñàkk gum leen ñàkk yéene xéewal ga tarxiis loo leen fexe ba génne leen ca la leen seen borom sant def loo leen lam leen santul fa adallahuma sheytaan anha fa axrajahuma mimma kaana fiihi baqara aaya fanweer ak juróom ba mu leen tegtalee ñaawteef wa te mooy def la yàlla bañ muy lekk garab ga sun boroom daal di wuññi seeni awra génne ñoom Adama ak Awa ah dal leen di gàcceel ni leen ndax terewuma leen woon garab gi ñu ne ah kay daal di ni suñ borom soo nu jéggalut nu daal di perte moom la ni falamma fadallahuma bi ghururin falamma daqa shajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqa yaxsifaan alayhima min waraqil janna wa naadaahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytaana lakuma aduwun mubin ñu daal di wax ni suñu boroom tooñ nan suñu bopp boo nu jéggalut yërëm nu ah nu bokk ci ña rek suñu boroom ni leen kon nag wàcc leen dal leen di jële foofa indi leen ci kaw suuf moom la ni qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin qaala ahbituu baadukum li baadin aduw wa fi l ardi wa mataaun ilaa hin ñaar fukk ñett ñeent waaye ci ngëneeli bis bi ak ya xew jeexit ya ci la yàlla bind aras ci la bindit kursi yi ak asamaan yi ak suuf yi ci la bind weer wi ak jant beeg biddiw ci bis boobu seyduna Ibrahim alayhi al khalil juddu waye ci bis bobu la isa ibn maryam alayhi wa ala ummihi afdal salam ci la juddu mom tam isa ibn maryam ruhullah bis bobu ci lañ ko yëkkati mu jëm ci kaw way kat bané bul fat isa madi ruhulaahi ci la ko maryam hamon billahi ci lañ ko mu way ba asamaaw ñu ray yahud ba nuru ba mu nurul ruuxam ganau, nga xamé ni japp nañu ne ray nañ ko salap ko ndeke da am ku mu nuróol mom lañ def lañ def mom la borom bi ni wama wama salabuhu walakin subiha lahum banam waxe ni bal rafaahu llahu ilayhi waye ci bis bobu ci la galu nohin gater alayhi salam dafa woowoo aw nitam jëmale leen ci wetal yàlla ñu lànk di bokkaale yàlla di ko moy ba mu demee ba dàcc ci la xamal suñ borom ni ko ñii dey li ñu leen di def loo naruñu koo def naruñu koo waxit te bu ñu fi amee ay doom ni ñoom la ñuy mel wala doo illa fajiran kafaara suñ borom ni ko kon nag defaral gaal soo ko defaree ba noppi nga dugg ca yàgg loo bëgg mu mucc mu musal leen mu daal di defar gaal ga daal di cay dugg moog la ko gëm ak lam bëgg mu mucc tuufaan ja ñëw alag ña ca des moom la borom bi ni qaala rabbi unsurni bima kadabuun fa awxaynaa ilayhi an isnaa fulka bi ayunina wa waxyina ba nam waxe ni innahum muxraquun moo tax woykat ba nee na nuuxun mi tax ba asamaaw ak suusi ndox yépp gëndoo gaal ga maaw ya tuusi fukkeeli xarit la gaal ga teeri soppeem ya daldi wàcc daldi réeri waaye ci bis boobu di fukkeeli tam xarit ci la yàlla génne yonent yàlla yunus alayhi ca jën wa ko wannoon sayyiduna yunus jën ko wannoon mu ne ca biiru jën wa di wax laa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin yàlla benn buur amut bu dul yow la lépp lu yellut man mii maa bokk ci ñi tooñ ci suuratul anbiya aya juróom ñett fukk ak borom bi ne wa zannuun id dahaba fa zanna an lan naqdira fa naada fi zulumaati an ant subhanak inni kuntu min alzalimin waaye njàqare loole ak woowee ci bisu fukkeel bi ci tamxarit la ko ca yàlla génne moo tax nee na yunus ci fukki fan la jën wa maata mooy deena bam naa ko laa ilaha illa anta te xam ni yàgg na ca biirub jën wa ñeen fukki fan di xaacu ngir banam wax kon ci bis boobu itam la yàlla joxoon yonent yàlla suleymaan alayhi salaam nguuram ga suleymaan nguur gu mag la amoon buur bu mag la woon daa war ngelaw di liggéeyloo ay jinne jan du ca bar borom bi tàggatal ko yu bari borom bi ne wali suleymaan riiha quduwaha shahrun wa rawaahuha shahrun wa athalna lahu ayna alxitri min aljinni man yaamal bayna yadayhi bi idni rabbi mel ni ñaam nguur googu bariwut ñoo xam ni personnel bi lay liggéeyal ay jinne la waaye say war waa ngelaw lay doon mhm. nguur ak Suleymaan ga ca lañ ko delloo jaaroom ba jinne yaag njanaaw ya booloo ñeent fukki fan xam na ko def baadoolo seytaane moom àdduna muy wëndeelu waaye bokk na ci ca xewit la yàlla wuññil ayuba balaa ba ñu profitoo ci diggante bi ñaan sunu borom mu wuññil àdduna it balaa bi ci fukki fan yii nu dëgmal yàlla nañu ci yàgg ak jàmm balaa bi xew yàlla na ko ci yàlla wuññi bu kenn dootu ko déggati mu bañatee lor kenn beneen balaa bañate amit ayuba moom it dégg nga na wax sun borom ne wa ayuba isnaada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamu rahimin waaye fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min sun borom daal di koy wuyu ba mu waxee ni yàlla lor dal na ma te yow ki ëpp yërmande ñaan sun borom mu xettali ko sun borom ne wuññil nañ ko njàqare loolee kasafna ma bihi min durrin way lolou neen ñu ci bisu fukel ci xarit la amon setal ma yonen ba ñu ayuba sax ya ko da xaccu di wat ni ba ci fukki fan la sax ya yep bolo genn yaram wa yalla may ko mbolo waye ci bis bobu ci karama yi ci sun borom def taw bi jëk wacc ci aduna joge asaman ci la jëk am wàcc ci suuf waaye ci bis boobu la yàllay taxawal bis ci ba muy bisu fukkeeli tamxarit bis boobu ca la sawaraw Ibrahima wa fay sawara yooyu ko noon ya taaloon war ko caa lakk te seen pexe ma jugut moo tax waykat ba ne yëgal ni kat maam sunu Ibrahima ca la ñu fay sawara way jahima fekkon na namrouz tal banam ga marda ba yàlla na ya naru kuni barda ya naru kuni barda wa salaman ala ibrahim yana lolou ci bisu fukke lu tam xarit la amone yoy yep seigne touba tënk nako ci ay way وحني ثم لعاشوراء أشياء ترى ashyaun بها رواها من درى ففيه تاب ربنا على بش أبي ala abi adam awalu nabi nga ko nee na mu xarit am na ay yëf yuñ ko jagleel nekk xam solo na ko ndax ci bis bi lañu jéggal aadama bàyyi mbindeef yépp mi jëkk ci yonent yi gaal ga gaal ak noohin ga mu ni wastafati safinatul maaluma fihi alal juudi mustaqima waaye xar ga ñu xaraloon Muusa géej ga mu jaar ca jàll ak juddug isa it mu ne fa fiihi falqu bahrihi li muusa wa hakada wulida fiihi isa ñëw ci labuk firawna ga di ni wa fiihi ixraaqun li firawna kada xuruju yunus minal huuti xuda jala yunus génn ci géej ga jën wa bokk tuma alayhi taaba alxalim fiihi kada xuruju yusuf alkarim yusufa it teen bañ ko tàbbaloon ca ko yàlla génne min jubbihi wa fiihi aydan سلم أو سلم خليله من ناره فسلم كلا يلا مسل إبراهيم وفيه رفع ذي العلا إدريس ورفع روح تقي عيسى يب وفيه أيضا تاب ربنا على داود غافر له ما فعله وفيه يكسى بيته الحرام عليه الصلاة والسلام نانا كي ci بوبيت كي it ci la ñuy boroom xam-xam yi wuute nañ ci ana moo tax ñu naa ko al ashura fukkeel am ñu wax ci ñoom ni moom day dinañ ko wax ashura ndax day fukki fan yi mooy bis bi fukkeel ci fukki fan yi jëkk ci muharram moo tax ñu tudde ko noonu am ñu wax ni tudde nañ ko ashura ndax yàlla da cee teral fukki yonent ci fukki karaama fukki ngëneel la ci yàlla defal ay yonent moo tax ñu tudde ko noonu noonu ma ko doon tudde ci lim bi li ma jàllale léegi am ca ñoom ñu wax ni tudde nañ ko ashura ndax yàlla da cee defal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fukki karaama karaama ba ca jëkk mooy weeru rajab weeru rajab karaama la tedd nga ñeel xeetu yonent bi sallallahu alayhi ndax rajab dañ ñi shahrullahi al asam mooy weeru yàlla wi nga xam ni da koo def muy karaama ñeel xeet wi ni mu gëne ci weer yi mooy ni yonent bi ni xeetu yonent bi gëne ci mbooleem xeet yi ñaareel ba mooy weeru baraxlu muy mu ni moom gëneelam ci weer yi mu ngi mel ni yonent bi gëne ci mbooleem yonent yi ni yonent bi gëne ci yonent yépp nee na ni la weeru ngëneel loolu la barax lu am ci weer yi ci des ñetteel ba mooy weeru ramadaan ni weeru ramadaan ni mu gëne ci weer yépp mooy ni yonent bi gëne wala ni yàlla gëne ci mboole binde fi ñeenteel ba mooy laylatul xadri mu ni moom xayru min alfi shahri juróomeel ba karaama bi yàlla defal xeet wi mooy yowmul fitri bisu kori ñu ne moom bisu fay la jaami yàlla yi jaamu woon nañ suñ borom tànnal leen bis war leen caa fay muy karaama ñeel leen mu ni juróom benneel ba mooy al ayaamul ashr min fukki fan yi nga xam ni moo jëkk ci weeru tabaski mu ni fani tudd yàlla la ñeel xeet yonent bi di nga neel rekk ñeel leen juróom ñaareel ba mooy yawmu arafa bis boobu xujjaaj yi taxaw arafa mu ni nga xam ni kafaara la wor ko magal bis bobu kafara ak ñaari at la ñel julit ni muy karama bo xamni yalla defal na len ko ci bis bobu euh, juróom ñentel ba wala juróom ñettel ba moy yawmu nahri muni mom bisu sako jega yalla la muy bis bi nga xamni ci lañuy rendi tabaski yi ba moy aljuma muni bisu aljuma mom sayyidul ayyam moy sangu bis yépp fukkeel ba nag mooy yawmu ashura nga xam ni moom nee na woor ko ku ko def mu kafaaral la mu fagal la bàkkaari atum yàlla lëm ñu ni lii lépp ay waxtu la yoo xam ni yu làmboo ay ngëneel yu bawoo fa yàlla ñeel jullit ñi suñ boroom fàggul leen ko ngir faral leen seeni bàkkaar waaye laabal leen ci seeni njuumte muy ay traite yus di jaamu yàlla wala yu mën a fa jaamu yàlla waaye da ay komers, yus mën a commerce man caa yeesal seen dig seenub dig li ñu seen borom ci topp ko ak tuub waxtoo ay waxtoo ma ngoog waaye ay waxtu la yoo xam ni ku bëgg a dellu ci yàlla waxtu yaa ngoog ay waxtoo ngoog yoo xam ni na cee yee na ñi sàggan waaye fàttali ci kat yi ñu waar ci ñi nga xam ni ñooy ñiy waaru kon fan yaa ngoog yal nañu yàlla defal nu am kàttanu mën a def yiñ ci santaane te daw ci ñu tere su ko defee bu bis bi dikkee sëñ Tuubaa nee na na nga def yii ne sum salli zil zur aliman ud waktahil rësal yatimim sax tasaddaq waxtasil wasi ala al ayaali xalim sufra wa suurat al ixlaasi alfan taqra nee na wooral jullil jokkul ak mbokk ziyaare jil boroom xam-xam seetil ku feebar tusngalul raayal bopp jirim saraxeel te nga sangu yaatalal sa njaboot mooy na nga leen jox ñu xewlu bu baax a baax a baax teral leen ci bis boobu lelli say wex jàng lixlaas junni yoon nee na bu bis bi dikkee yi yépp loo ci def rek am na lu lay lu mu lay jural ci njariñ moom it indi na ko fa ci gàttal rekk lu ca ne am na lu muy jariñ ka ko def kon ku ko mën nga def ko nee na yii Bàmba ko wax ku def ñu fay junni aj ak junni bi umra te loo haajoo ñu faj dellu la fay yoolub junni saxaaba yu faatoo xaybar mbaa badar nga yaaba dellu la fay yoolub junniy jaam ci doomi ismaayil yiñ jaayoon saam dellu la may téeméeri junniy njënde fi jannatil si dootoo fande dellu la may ca gaayi xóorul ay ni téeméeri junni xiig ay xiig mooy ay jànq fa kër Xuseeni xiig bu na yor téeméeri junni wëkk néeg mooy ay bëkk néeg la mag ñi wax wëkk néeg mooy ay bëkk yu mel ni weer te kenn du génn ci sa néeg ñoom ñépp dootuñu fa génn ndax yàlla ni toog leen xaalidiina fiha yéen gaa gaayi daa màggal di woor nee leen xaa waaju fi màggal yow ma ashuraa muy bisu tam xarit li lay fayoo yow mal xiyaam waraa kon fii laay taxawlu muctadiran li kulli xibri zi adab xabiri nahwin wa arudin wa adab والله ربي أسأل القبول والعون والتوفيق والوسولا وآخر